الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يغشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى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 alhamdulilah xaaili fi kitaabihi la aziz fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin wa qaala subhaanahu wa taala fa zakir bil qur'aani man yaxaafu waid wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa rasulihi allazi ma taraka baaban yaclamu fihi xayran ila dallana alayhi wala tariqan yu addi ila charri ila xasarana minhu mbokk jullit yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu kilifa diine yëpp di nuyu kilifa aada yi euh, mbokki mafatihul bisri euh, ginnaaw bi ngeen xamee ne itam euh, tey ñu ngi dellu si waa ci li nga xam ne ni moom moo di seen émission kàddu daara yi ngeen si ànd ak seen mbokk seen xarit soxna Jamilatu Jaxate tey ñu ñëw fii nga xam ne moom moo di daara yi Serigne Omar Cissé daara ji mu ngi nekk fii ci Jurbel Euh, mu ngi tudd mahadul quranul karim di tarbiyati wa tahfisi bi riwaayati bu maam xalifa Niass tey moom la ñu ñëw fii ànd ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Omar Cissé mu di euh, Serigne bi nga xam ne moom moo nekk ci daara yi daara ji di tàggat xale yi tey moom la ñuy ànd ak euh, ci seen émission kàddu daara yi kon mbokki ma fatihul bisri yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan euh, te taamu seen télévision mu di albisri tv ngeen mën ko am fu ngeen mënti nekk ci àdduna bi euh, tey tey sëriñ Omar Cissé ngeen di ànd ak sëriñ Omar Cissé ñu jox la nga nuyoo ak euh, mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan billahi min ashaytaani rajim bismillahi alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab walam yajal lahu iwaja wasalaatu wasalaamu ala man qaal taraktumul amrayni ma in tamassaktum falan tadillu baadi abada kitaab allahi wa sunnati wa ala alihi wa saxaabihi alxiyara wa ala man tabiam bi ixsaanin ila yawm ddin wa baadu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen mbokki Mafatihul Bichri ñu koy seetaan ci États-Unis d'Amérique ak ci diaspora bi yëpp ñu ngeen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu nuyëb islaam bi yàlla boole ñu nuyëb waa aljanna nan yàlla nuyëb yàlla nañ ko nuyëb wante biir aljanna ci barkeb borom mbaar ma ci kawlax kon ñu ngi am mbégte bu baax ci seen turu télévision bi ni mu uyoo yal na yàlla def ko suñu biir yëpp ñoom ñëpp lépp luñ dugg rek yàlla na yàlla defal ñu ci mbégte dunyan wa uxraan bi jaahi xalifatul xaaji Muhammad kon soxna Jamilatu loolu moo doon nuyoo di nuyu waa télé bu baax te di leen ñaanal yàlla yal na seen télé bi yàlla yëkkati ko ni yëkkatee télé ci àdduna bi yëpp ndax lii liggéey bu am sol la ndax di wër di nemmeeku alquran di nemmeeku liggéey bi yàlla bi dafay wane na rek liggéey bi yàlla bi saf na leen ni mu leen safee nag ba ngeen ci dox ay jéego yal na yàlla defalee seen mbir noonu yëpp barke alquranul karim Euh, jërëjëf euh, Serigne Omar Cissé euh, ginnaaw bi nga xamee ni itam nuyu nga ñi nga xam ne ni ñoom lay seetaan ñoo lay seetaan fii ci Mafatihul Bichri yow tamit ñu ngi lay delloo nuyo bi te di la ziyaara di ziyaara mboolem ndongo boo xam ne fekk nañ ko fii ci daara ji nga xam ne moo di mahadul mahadul quranul karim di tarbiyati wa tax fii si bi riwaayati bu maam xalifa Niass ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla Euh, lépp loo xam ne indi na leen fii ci daara ji mu di mokkal alquran ñu leen di ñaanal képp ku fi ñëw rek yàlla nga mokkal ci barke maam xalifa Niass Euh, mu mel ni ki Serigne Omar Cissé kàddu daara yi dafa jug ngir waxtaane li nga xam ne moom moo di njëriñul alquran lépp loo xam ne itam nekk na ci alquran dinañ ko waxtaane waxtaane itam li nga xam ne moom la daara ji du dund ci ñi nga xam ne bëgg nañ cee jàpp ñu mën a xam ban anam lañ ci mën a jàppee ngir ñoom ñëpp ñu mën a jëriñu ci li nga xam ne moom moo di alquran kon suñu laaj bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a laaj Omar Cissé euh, moom moo di daara ji kañ lañ ko créé daara ji ñu ngi ko créé le 5 mai 2005 euh, su ma juuma ren ji ci nekk ci fukki atam ci ndigal xalifa bu tedd ba moo Cheikh El Hadj Omar yow ni yow yokk leeram taasu ci barkeem kon loolu mooy taarixu daara ji année boobu moo demee dafa tombé woon ak ci weeru gàmmu ginnaaw bu weeru gàmmu gi weesoo bis ba delsi matagul fukki fan ak juróom ci lañ ko créé ci daara ci ci diggante ñaar fukki fan ak juróom ci weeru gàmm mu tolloog juróomi fan ci weeru mai dégg nga 2005 loolu mooy taarixu daara ji ko sos. Serigne Omar Cissé kon daara ji ñu ngi ko sof sos le 5 mai 2005 euh, ci lañ sos li nga xam ne moom moo di daara ji nga xam ne waa kër maam xalifa ñoos ñoom ñoo fi nekk di jàng alquran euh, te itam bëgg nañoo xam daara ji lan moo tax ñu sos ko. Euh, ban taxawaay la ci nit ñi amoon wala waa kër maam xalifa ñoom ñoo euh, sos daara ji fii nga xam ne moom moo di njaareem wala yow yaa volontaire jug ngir jàngale alquran euh, ngir laaye biir ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di julli di bi am na solo suñu sang bu tedd Mawlaay Cheikh El Hadj Omar li suñu sëriñ suñu xalifa suñu yaakaar Mawlaay Cheikh El Hadj Ibrahima borom qaala Allahu qaala seen baay moo waa imaam Xalifa bi muy génn àdduna dafa dajale woon njabootam gi yëpp sama daara ji lay dénkaane mooy daara ji bu mu fay waaye su ma koy wax nag alxaaji yow ak alxaaji Ibrahima yéen a tax yéen ñaar laa dénk sama daara ji walillahi alhamdu wa shukru ñoom ñaar dañu di taxawee kenn ku ci nekk yor daara di ko jàngale ba mu jigi say doom di ko jàngale waaye Cheikh Hadj bi mu demee ba nekk mag lool ba am juróom-ñeent fukki at ndax mu ngi génn àdduna ci juróom-ñeent fukki at ak ñett ak juróom-benn weer doomam yi daal dajaloo seet ki raw ci doom yi nee na yor daara ji seen bàyyi bàyyi jàngale keroog bi ñu ko waxee dafa mer lool ne leen na njëkk tey na mujj tey man jàngale dee mooy tax ma bàyyi ko ndax sama bàyyi ko bàttale woon yàlla def ñun moom moo ñu yar bi ñu amee juróom-benn at dañu tuddee jox ko mu jàngal ñu ëpp suñu jàng ginnaaw ga ba mu yëgee ne daara ji daal njàng mi mu bëggoon des na ci ñun. mu yóbbu ñu ci benn xaritam benn dongo bu baax benn sëriñ bu ñu wax oustaz Babacar sekk ca Sàmm ci Kaolack yàlla def mu nekk ku man alquran ku man maxaarijul xuruf yàlla def bi ñu fa nekkee ba mu yàgg euh, Mouhamad Khalifa Niass doomi Ahmad Babacar ñëw Jurbel di fi jàng ñu gis ne fii mokkal gi gaaw na daal di indi ñu fii bi ñu fi nekkee yàlla def euh, ki ñu doon jàngal bi mu ñibbee ku ma doon jàngalee suñu sëriñ Moussa Touré daal di jàllal suñu bopp kokki keroog bi ñu dem sax ndeysaan sëriñ bi yaram moom daw na xool nañu lool daal di yërëm ñu laaj ma lu ne laaj na ma ko loo soxla ma ne ko dara lu ne laaj na ma ko ma ne ko soxla ma dara mujj gi ma ne ko saabu rek laa amut keroog Cheikh El Hadj Omar jënal na ma saabu loo xam ne dem naa kokki jàng ba ma ko alxaan ñibbi ja saabu ba ko may léegi nag yàlla def bi ñuy pare di jàngale mu am ay doomi rakkam ñu joxoon alxaaji Amadou borom gént pël muy papaay Serigne Haadi doomam bi ñu tuddee Idrissa keroog bi mu taree alxuraan la ma sama turandoo wax ne ma métier yi bari nañ waaye yow li ma la dénk ci àdduna mooy jàngale alxuraan bul defi beneen métier bu dul jànga boobu nag nekkuñu woon ci daara ji ñu ngi nekkoon ruq kokki yàlla def ñu continuer tamit di fa jàngale ba yàlla teel yàlla nag daf ñu teel dimbale ñun ci jàngale alxuraan daanaka su nit wàccaan kaamil bi ba fëttëgee ba ñun li ñuy wax jukki dana jukki juróom-ñetti weer ba at door a tari daanaka man bi ma mokkoo alxuraan rek ñi ma njëkk a ñetti weer duñ ko weesu ñu tari ci anam bu rafet ba mujj gi ñi ma doon jàngandoo rek xale bu ci wàcc da ngay wax ne man maa lay téye amoon ndeysaan sama benn xale sama xarit bu baax daam um, mu ndaw lañ ko daan wax daam tàmbali ko tudd bi ko Ibrahima Lo mi jiite woon suñu jàng bi fekk maa ko doon téye mu bëgg jox ko keneen jël benn xale bi ñuy wax mbay caam jox ma ko daam daf ko wax ne ko man sama mot see téye ko damay bàyyi jàng ndax kenn du teel téye ko moom ndax li nit ñi bëgg laa bëgg damaa bëgg a mokk alxuraan te moom ñi mu téye ñoom dañuy gaaw a mokk léegi nag ci biir loolu bi ñu sëriñ bi waxee loolu ñu toog ba ay jamono euh, fekk ci ndigal sëriñ bi ci lañ defoon daayira bii nga gis tey tey boo gisee tey mbooloo mi toll nii ñun daara ji samedi dimanche lañ dul jàng moo tax tey xale yu ndaw yi rek nga fi gis dégg nga euh, kii nga gis sama kanam suma tukkee mooy yor daara ji euh, kee toog Mouhamed Thiam moom ñi fi nekk ñëpp moo fi njëkk moo ko alxuraan daanaka da moom daal moom mooy ki nga xam ne tey mooy moteuru daara ji maanaam côté yëpp rek Euh, moom moo fi taxawee daal ci fànn gu ñu gu ñu soxla rek léegi nag bi sëriñ bi waxee loolu Cheikh Hadj daal di waxtaan ceeg njabootu maam xalifa gi wan na leen kër gi dañoo waa taxawal daara waaye xam nga alxuraan neexut a jàngee fi nga dëkk ndax euh, yar gi muy laaj tumuranke gi muy laaj ak ñu la bëgg a bàyyi loo yu bari soo ko nekkee sonal ay way jur su boobaa pour nga jàng ko fa dafay jafe loolu moo waral ci ndigalal Cheikh Al ndax ñun suñu waajur ginnaaw bi ñu ko tuddee jox ñu ko man su ma ko waxaan dara sax damay wax na ma sama yoon nekk ci dama nga wax sa turando moom laa jox même bi ma teree alxuraan lépp rek programme bu ma mës a def rek sama turando ci bàyyi ko waaye sama papa moom nee na yoon nekku ci yow lépp sa turando la léegi nag loolu mooy sababu ñu créé daara ji daara yi maam xalifa ji lañuy la ñuy sosee Kaolack indi ko jàllale ko Diourbel su ko defee xale yi dëkk ci pays bi ak ñi nga xam ne taalibe kër gi lañ ak yeneen doomu jullit yi am saas war cee mën a jëriñu ba jamono boo fi ñëwee sax da nga fekk ñu sant Niass ñu fi jàng tey sang bii ñu dendal Ahmadou Niass surtout maam Khalifa maam Aliou Niass mooy way juróom tey ñu nekk sant Niass nekk ci daara moom moo ci mag ñu ngi ko nuyu bu baax di ko ziara di ko wax ne ko mu ñaanal mbooloo mi nit ku baax daa iman da ngay seet ñu baree bare jamono bu nekk fu ne dafay bàyyi ko di mokk alxuraan kon lii mooy sababu ñu sant daara ji mooy sëriñ bi dafa bëggoon taalibe yi dëkk ci biir pays bi te bu ñu fa nekkee seen jàng di yàqu ak ñenn ci njaboot gi xanaa bu ñu nekkee ci kër gi du ñu mën a jàng ñu rawale leen indi leen fii ñu jàng si su ko defee tamit bawal gi tamit même temps moom xam dafa bëri ay muqaddam dafa bëri woon ay taalibe laa bëgg a wax te ñoo xam ne dañuy bëgg lu ñu leerlu te du ñu am ku leen ko leeralal su ko defee nag mu nekk occasion sëriñ bi tamit indi ñu fii su ko defee ci diggante alxuraan jéeg diina jéeg tarixa bi lu ci waay bëgg a jël rek ñu jàppale woon ci ak yow di ko jàngale di ko xamle lii mooy soobu créer daara ji ci Diourbel jërëjëf Serigne Omar Cissé Euh, mu mel ni ki euh, euh, laaj bi leer na nañ kon jàngale dafa mel ni ki yow da nga koo bëggal sa bopp Euh, ñu albatiku daal di la koy sas euh, moo tax euh, mu am solo ndax gis nañ fi ay affiche ñoo xam ne ñu bëri ñoo xam ne jaar nañ ci daara ji mokkal alquran gis nañ itam ni ngay taxawee ci conférence yi nga xam ne moom la ñu def ñu jëm mu jëm ci wàllu alquran kon suñu ñetteelu laaj ak yow moom moo di yan façon njàngalin nga ngay ngay faral di jàngale ndax xafs ngay jàngale wala warsh ngay jàngale wala ku ñëw rek téere boo mun ci am rek danga koy jàngal ak ndax yéen a ngi jàng téere xam-xam wala ci alquran rek ngeen yem. xam nga daara ji boo xoolee tur wi maahadul quraanil karim li tarbiyati wa tahfiq bi riwaayatayni soo ko doon tekki ci olof rek mooy école bi nga xam ne dafay jàngale alquran dafay jàngale alquran bu tedd bi tey yar njabootam lan lay jàngale mun a ñaari riwaay yi xam nga alquran juróom ñaari riwaay la waaye yi ci gën a siiw rek mooy xafsu ak warsh ñun nag yàlla def na ñaari yëpp la jàngale waaye ci biir ñaar yooyu tamit duñ ko jaxase dafa am ñu jàng soo am ñu jàng warsu li waral nag ñu jël loolu mooy alquran riwaaya warsu dafa jafe te bëri na ñu jàng warsu te mënuñu warsu su ci wàllu imaale yi euh, tomb yooyu baat yooyu nga xam dañ koy tomb rek léegoo ñu jar ko jàngee ha léegoo ñu war ko jàngee wa léegoo ñu war ko jàngee ya lu jafe la ak taxañ yi aliful waslu yooyu ak baat boo xam ne da ngay gis mu war a xëcc lu mel ne weta jannabuha rashqa nga gis alifun faasilatun nekk ci kanam woon a xëcc te yow doo ko xëcc talan moo tax doo ko xëcc loolu ci njànginu warsu la ñu yëg ne warsu dafa jafe te léegi wala nit bàyyi ci àll wala ci benn daara xam ne xëy na sëriñ bi ko sàmm wante ak maxaara ji su boobaa njàng mi dafa am nu muy yàqoo pour nga defar ko ci warsu bu wér dafay jafe gis nga yow jàngalekat bi saa su la yàlla mayee donga boo xam ne baat bi làmmañ wi setut bu baax xaraf yi nga bëgg ak ni nga bëgg mu jàngi alxuraan mënu ko su boobaa orienté ko ci waxu xafsu moo gën a yomb nga jàngal ko war su piir léegi tamit nit dafay bàyyi koo fenn fekk jàng na ba dëgër te xafsu xam nga moom taxul koo jëfe même ci wàllu tajwid sax moo gën a oyof dafa oyof loolu gisoon naar yi moom rek lañ jàng ñu ci bëri boo gisee warsu ñu bëri duñ ko jàng dañ ko ñemewut ndax warsu dafa jafe ba jéggi dayo ci njàngin te dafa diis tamit ci wàllu tajwid léegi nag loolu moo waral ñun ñuy jàng la ñaar yëpp ki nga xam ne ñun ñoo ko daal jàng li ci gën a bëri li ñu ko tànnal mooy warsu ndax war soo ko jàngee te man warsu bu wér bu set mën ngaa mën xafsu doo ko jàng waaye xafsu moom mën koo jàng ba jeexal doo xam ci warsu dara su ko defee nag te it bëgg nañ fii ku fi juyee koo rek soo jàngee alxuraan ni ñu xam ne jàng alxuraan ju rafet xam nga yàlla dafa waxoon ci alxuraan ne warattilil qur'aana tartiila su ko defee ñu sàmmwante ak loolu moo waral ñu indi ñaari riwaay yëpp di ko jàngale ki ñëw ak xafsu bu dëgër ñu bàyyi ko mu continuer ci ki ñëw ak warsu bu dëgër ñu bàyyi ko mu continuer ci ki ñëw tax njàng mi xaw a sant Touré dégg nga wala mu sant mbay ñu jéem koo jubbanti def ko xafsu loolu mooy sababu daara ji su ko defee tamit euh, beneen ba dafay am xale boo xam ne tamit dafay neex baat mën a jàng lamiñu sax dana rafet waaye du am fond dégg nga te boo xoolee xafsu li muy taloore di léegoo-léeg ak ni muy jàngee loolu xale bi nga xam ne amul fond bu gudd su boobaa kok tamit ba tey jàng xafsu moo gën a yomb ci moom dégg nga euh, Euh, pour nga fer rek ci warsu mën ngaa wiir waaye da gis ku mën a wiir fer ijji bu baax waaye boo ko joxoon téere warsu su jàngee la yàlla xam doy nga tey wala qad jaa haada firawna nuzuru haada googu nekkul haa un kabiratun waaye benn tomb rek la lan moo tax ñu koy jàngee nag soo demee chan bi dafay wax ne wa hamzatul waawi wa hamzatul yaayi fashkil wala shakkil li hamzatil haa gis nga Hamza googu muy tudd namut ci am Hamza waaye ab tomb lay doon bépp tomb gu ñëw ci warsu te maasuñu ko ha un kabiratun dañ ko jàngee waaye buñ ko maasee rek su boobaa yaay dañ ko jàngee wala waaw waaye nag nooy def ba xam ne dañ ko jàngee waaw wala yaay mu ngi aju ci maas gi nekk ci ginnaaw su fekkee ne maas gi nekk ci ginnaaw dàmm la dafa lonko su boobaa li ñu koy jàngee mooy lin nabi ina raada nabi wañ yastankiha comme baat bi am na maas boo xoolee tomb boobu am na maas ci kaw léegi nag baat bi nekk ci ginnaaw masque damm la kon wala lañ koy jànge wañ yes dañ koy su fekkee ne masque dafa nekk ci suuf su boobaa yig nga koy jànge euh, yaayul nga koy jànge moo xam lu ñu commencé ci kaw jàng ko yi ab lu ñu commencé ci kon loolu yu mel noonu dafa bëri fa jaalahu xusaan naxwee ci sa bixis ma du nuunum la waaye li fi nekkoon mooy xusaan hamza gi ci ginnaaw ñaari maas am léegi nag am na benn alif bu fa nekk boo xam ne amul hamza am lu mel ni maas ci warsu su boobaa baat bi ci ginnaawam hamza dootu jàng ñaari maas mooy benn bee nga jox xusaa ah waaye alif gi nag boo dafay soppeeku nuun su fekkee ne li mel ni maas ci kaw la nekk na lañ ko jàngee bu nekkee suuf jàngee ko ni su nekkee ci diggum jàngee ko nu léegi nag critères yooyu nga xàmmee ko dafay jafe ci warsu te gis nga alif googu nga xam ne amul hamza def lu mel ni benn maas gu ndaw rek bépp baat bu mu topp ci warsu baat boo woon a xëcc dootu xëccati wayete jën na bu ha lashqaa ngay jàng waaye boo xoolee jën na bu ha la bi di bind waaye doo jàng wees ci jënn boxa yooyu nag moo jafe xam ba jéggi dayoo ci tax xam nga jaxase ñaari riwaaya bokk loolu yoon nangu mayu ko dama senegal moom léegoo surtout sax suñu imaam yi bëri na ci imaam yoo xam ne la yàlla xam doy na da nga dugg ci benn jàkk imaam bi bu dóor fii dóor fee sabbi sa rabbikal aala alladi xalaqa fa sawwee dégg nga dafay jafe te tamit xam nga ci ñaari njànge yi dafa xaw am outil de toro léegi léegi sax benn baat nag mu am ci alxuraan boo xam moom dafa yokk saari'u ila maghfiratin warsh mooy wax loolu boo demee ci moom wasaari la ko def mais à part baat boobu amul nag baat boo xam dafa yokk xaraf bi amut benn yoon boobu la ci am waaye nag bëri na façon baat yoo xam ñoom ñaar dañ ci utee wa jaal naa min bayni aydihim suddan wa min xalfihim suddan warsh mooy wax loolu xas ne saddan wa min xalfihim saddan boo demee ci sax wa shamsi falaa yaqaafu uqbaha warsh mooy wax loolu xas ne walaa yaqaafu uqbaha xayrul bariati warsh mooy wax loolu xayrul bariyati dégg nga xas daal di wax loolu kon gis nga ñaari njàngin yi njàngin la yu xaw a doy waar moo tax ñun ñaar yëpp la ñuy jël ci tàggat nit ñi su ko defee kenn ku ci nekk rek bi doon sa wërsëg ñu xam ne attan nga ko su boobaa ñun ñoo koy nattu rek euh, daal di jàngal boobu waratilil quran tartilan defe naa ne loolu leer na naañ leeral nga ko te itam damay euh, indiwaat foofu beneen laaj ci biir li nga wax ndax euh, dama gis sa ndongo bi nga xam ne da doon jàng alquran daf doon indi idgham indi ixfa izhaar yi tamit def ko doon indi normal ndax ñoom dañuy jàng maanaam téere bi nga xam ne moom moo di tajwid bi nga xam ne dafa indi loolu téere boobu dañ koy jàng wala yow yaa leen koy jàngal ci sa làmmiñ euh, li gën a bari ci daara ji surtout ñi mokk alxuraan euh, dañuy jël téere bi téere bi ma gën a taamoo téere tajwid yi bëri na waaye daf ci am boo xam ne jàmbaar la loolu neex a jàngalee tajwid muy raait fi tajwidil quran euh, boo xoolee borom tuxfa dafa am abiyaat yu mu defoon ci wàllu tajwid day jël abyaat yooyu di ko indi euh, xam nga euh, alquran euh, surtout tajwid lu jafe la ndax dafa am ay règle yoo xam ne nekkul ne fu la neex taxaw nekkul ne neex tuddee baat tey man kaana yuminu billahi kii jàng tajwidul rek mën naa wax loolu waaye boroon tajwid sañatoo wax man kaana su boobaa foofu ixfa moo fay ñëw ndax nun giñ mas maskam néeg du nunu saakina kaafoon moo ci topp kon ixfa la man kaana la war a wax moo tax ñun di leen jàngal irhaar jàngal leen idgham ixfa xarful gunna mushaddada dégg nga euh, jàngal leen tafxim euh, ak ñeenti taxawaay yooyu nga xam ne dafa amoon mooy muy xabiix ak uzur ak taama ak xasana yooyu yëpp ñu fexe ba xale yi di ko xàmmee su ko defee am na ci ñoom ñu ci bëri ñi ñi ngi mokkul alxuraan sax am na ci abyaat yu bëri boo leen ko waajoon ñu taril ko lu mel ni ñaata xaraf mooy xarafu ighaar la ñu ne la juróom-benn ñu wéyal la ko ne la fa hamzatun haun summa aynun haun muhmalataani summa ghinun xaun dégg nga soo demee ci idgham dégg nga mu ne wasaani idghaamun bi sittatin atat fii yarmuluuna indahum qad sabat dégg nga nga dem ci iqlaab mu ne wasaalisul iqlaab inda baaun miimun bi gunnatin maal ixfaa dégg nga nga dem ci ixfaa mu daal di def noonu dégg nga noonu dañ koy indee ba ci xarfal xur na mu shida yooyu yëpp su ko defee ñu dinañ ko jàngal ñu di ko xam parce que nekkul kii rek waaye tey ñoom ñu ci bëri kenn ko fi jël soo ko jàngaloo mu jàngaloo comme ñoom ñëpp nuñuy nuñu nu ñuy jànge parce que fi mu ne nii daara ji damay wax ne niru sa jamono dafa am solo te neex ju rafet suñu mag ñi nekkul ne dañ koo bëggtoon dañu amutoon moyen bi parce que man sama turandoo maam xalifa rajo euh, Mar doom ñu ci bari bi ñu jàngee ba mokk alquran benn naar bu ñu wax rabbaani bàyyi ko mu tani mu indi ko jox ko muy daa jàngale boobu fekk na sama turandoo mokk alquran moom kat ko yóbbuwaat mu jàngat maxaarijul xuruf moo tax man ci ma daawee jàng bi may ñëw Jurbel sax ak kokki sama turno dafa ma wax ne ma foo dem buñ naree yàq sa maxaarij da nga bu jàng dul maxaarij waa ñi seen ñoom dañ ko fonk trop parce que boo xoolee tey euh, waa Ndar yi euh, sëñ Mara Diop waaj Mohsin daanaka mën naa wax ne ñooy daara ji njëkk a commencé jàngale tajwid ci alquran alquran bu rafet rafet sama turando doomam yëpp foo lañ mokkale alquran mu ne même xalifa bi alhaji Ibrahima Mouhamad taawam foo la mokkale nekk naat at absurde yëpp fukki at yoo xam ne difa jàng at mu jot moom Mouhamad Niass bu ñu defee concours tajwid bu mu mos a bokk moo ko gañ ba mujj gi naare ñis alxuraan lañu ko tuddee woon benn jour ñu ngi waxtaan sax weeru koor daaw rek waa Màkka teg nañ benn musaabaxa bu mu daan bokk mu gañe ko ba tàyyi nee na ma bu concours yi mujj yi daan am dafa am naar yoo xam ne ñëw di ko neexal xaalis pour mu bañ a bokk pour mu ñoom ñu mën a gañe mu bañ loolu damay bokk loolu nag euh, maam Xalifa moo ko bëggoon ba jéggi dayoo fu ko fonkoon maxaaraju xuruf la loolu moo waral ñun daara ji tamit xale yi dañuy fexe ñu koy jàng ci njàngin bu rafet boobu parce que jamono sax moo leen ko imposé damay wax ne danañ dem ba ci kanam képp ku ko mënul euh, soo jàngee alxuraan ñi ko mën dañu lay xeeb di la reetaan moo tax su ma sañoon fii ku fi génne rek qualité euh, ak quantité lépp laa bëgg mu boole dajee fi moo tax ñu sonn ci yu mel noonu euh, waa mbokki mafatihul bisri yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan tey émission kàddu daara yi ñi ngi fii daara yi Serigne Omar Cissé daara ji nag mi ngi tudd mahadul quranul karim li tarbiyati wa tahfiz bi riwaayatayni bu am Khalifa Niass tey moom la ñu àndal ci li nga xam ne moom moo di émission kàddu daara yi bëggoon nañoo xam itam maanaam daara ji ñi fi mokkal alquran maanaam ci ban lim la ñu toll cinq ak léegi Euh, fan yii nag dama dafa def dafa def demul sama calcul année ren bi dama ko dugal ci calcul daaw bi waaye daaw euh, bi nga xamee ne def nañ programme bi boobu ñu ngi tolloon ci cent un personnes bu wàgg léegi yaakaar naa fi mu ne ñu ngi toog yaakaar naa ci cent huit juróom-ñaari nit ñoo fi mokkalaat ñoo fi mokkalaat alxuraan diggante diggante daal cent cinq cent six cent huit diggante boobu euh, damay bañ a wax lu amul moo tax ma bañ a basé wu ci benn waaye daal ci diggante boobu la ci la nekk. boo xoolee sax année yi yëpp dafa xaw a baissé njàng mi dafa xaw a euh, mokkam dafa xaw wàññeeku li ko def nag mooy jafe-jafe daara ji parce que kër gi njëkkoon dëkk moomuñu ko benn góor gu baax suñu baay Sidi Mokhtar Ndiaye moo ñu ko joxoon ñu dëkk fa kër gi nag yàlla def at yi dafay taa taa bu métti di inondé ba daaw jeeg sax euh, feer bi da ci bari woon lool ci dañ daan taxaw ci biir ndox di jàng amuñu fu ñu dëkk yàlla def ci lañ góorgóorlu tey ba jënd benn terrain fii commencé di ko tabax su ko defee loolu nag euh, daanaka nawet bi njàng mi da doon ba nga xam ne bari na sax ñoo xam ne demoon na fii bay waa ci ñaari at yi ñoo xam ne bay waajee mokkal nga xam ne benn weer bu ñu ko fi defoon terewul Alxuraan daal di dem ndax ay jafe-jafe ñenn ñi feebar nañ ci sax ba entré hôpital ñibbi seen kër yi ñëwaatuñu loolu nag ñaari at yi moo xaw a baissé njàng mi ba nombre bu ñu daan am ci kàng parce que at yi passé daan am benn at bu nekk ay fukki nit ak juróom wala fukki nit ak ñett wala ñaar mais boo xoolee daaw ak ren dafa xaw a delluwaat ginnaaw ndax boobu ñàkk dëkkuwaay ñàkk barab bu baax boo xam ne ñoo ko moomaloon suñu bopp waaye léegi nag ñu ngi ci ñu ngi ci di ko di ko liggéey waaye nag ba tey sotteegul kon loolu moo tax euh, te tamit daara ji comme ni ko nit ñi waxee ñun ñu nekkul daara joo xam ne dañuy joxe suñ ay résultat rek sànni ko ci mbedd mi nii soo ko neexee gis nga kii ma tiim tey mun naa la wax ne la kenn ku ci nekk ñu fi ma ko diw diw nii la tudd fii la dëkk fii la bàyyeekoo euh, waaye dama lay wax rek ki fi njëkk a mokk alxuraan euh, biñ ko sancee ak léegi soo ko defee ma wan la photom su ko defee caméra bi koy jël xale bu ndaw la Euh, mu ngi ni Ndiaga Dieng la euh, tudd euh, mu ngi dëkk dëkk bu ñuy wax Samba Nooso ci boori Kaarañ foofu dëkk moo njëkk tari alxuraan ci daara ji mooy xale bi année bi juróom-ñaari nit ñoo tari alxuraan ci daara ji mooy première année bi njëkk a kaa kaang ci daara ji juróom-ñaari nit waaye moom moo ci njëkk a tari alxuraan dégg nga gis nga kii bi ngay gis album bi bu ñu sancee daara ji ak léegi Euh, at mu jot dañuy def benn gàmm wala ñu def conférence boo xam ne ñi mokk alxuraan ci at mi yëpp ci jox seen shahada xafizul quran mooy diplôme bi nga xam ne mooy wane kii tari na alxuraan fii nag képp ku fi mokkal doo taree ci daara ji waaye ñaari tari waaye mooy fam bi ci ci njëkk mooy kër gu mag kër Serigne Mor Mbaye ñi fi taree ñëpp fañ ñoom ñi fi njëkk a tari Serigne Bassirou Cissé rahmatullahi alayhi moom wax ci làmmañam ne ma ñett ñi fi njëkk a tari de xale bu ndaw bi moo ci gën a rafet làmmañ benn yoon la gag te xulon bi bi falax la gagee Euh, moo ma ko wax ci làmbañam yàlla def na sax sëñ Abdou Lahad bi mu toogee euh, bi sëñ Bass bàyyeekoo ki fi njëkk a terewaat Habib sëñ Anam tudd mu ngi nekk kaw wax keroog bi mu demee sama kanam sëriñ Abdou Lahad Cissé moo jël téeb di ko téelal boppam ba pare rafet moom ak sëñ Bass ñoom ñëpp wax nañu ba tay ne ma ku mokkalati jarutul nga koy indi ko ca daara ja man leen man du ma jàngal ñu ba pare sant ñas euh, ñu ci gën a bari gis nga xale bii maam waajab du wàññi suñ ko tuddee do surtout maam chef yoon ñas fa dégg nga bu ñu mokkee alxuraan ba tari fi alxuraan ba pare dañuy demaat ñi seen tari jiwaat kii ma dend Ousmane Ndiaye mi kaw a dëkk keroog bi muy tari baat bi ko doon téye presque mën na fanweeri nit te doo dañuy ñëw wëre wër ñi seen yëpp digg diw comme ni ñu toogee rek nga toog ci digg bi ñëpp ubbi kaame alxuraan wër la xalifa bi ta taawam taawu bi taawam fi la tari alxuraan bàyyam tuddee sëñ bi muy Mouhamad Niass mooy taawu Alaaji Ibrahima xalifa bi moom taawam mu ngi tuddee bàyyam ñu koy wax Faysal fi la tari alxuraan keroog bi muy mottali ci jumaa yi ñi seen bi bisu àjjuma xalifa bi dafa wax ne man bokk naa ci ñi ko doon téel jël sama téere toog kawe bi tari waaye tari na kawe ba mu jeex benn jaawale laa gis mu jaawale ko moom mokkal moom duñ koy foye dañ ko ñun daara ñun li ñu chartal mooy kaame bi ku ko tari de am ci lu ëpp ñetti baat moo xam gag wala jaawale wala jéel wala yàq mokkaloo da ngay jàngiwaat ku fi mokkal it ba man bala balañ ma laa jox ñoom ñi mokkal nekk ci daara ji ñëpp kenn ku nekk dina la téel kaame seetal la buñ paree doo ma jox su ma ko seetee su ma ci gisul loolu door dem kër gi su ma gisee noonu dama jàngat kon noonu mooy gis nga album bi daal soo ko xoolee ba mu jeex ñi fi mokk alxuraan ñëpp ci daara ji kenn ku ci nekk bi ñu jox shahada yi photo ko moom mu am ci daara ji am ci ñu garder archive léegi nag malheureusement dañu amagul fu ñu ko dugal ndax waroon am ordinateur mag di a yàqu parce que xam nga photo yi mën na yàqu mën na def mu ne su ko defee kon yéen waa euh, moom yu baax yoo xam ne archive daara ji yëpp dana ci mën a nekk sa ñaan ak xaas mu ngi lay xaar ci daara ji waaw Serigne Omar Cissé euh, wax nga lu am solo kon euh, mun nañu joxe sa numéro ku la mën a baaxe ab euh, machine ordinateur rek boo xam ne ni dafay archiver li nga xam ne moom moo nekk ci euh, daara ji waaw waaw <laughs> wala ciment <laughs> incha allah numéro téléphone bi 77 la 524 42 88 77 524 42 88 wala nga woote ci 70 809 48 12 809 48 12 boo ci wootee di nga jot Serigne Omar Cissé loo joxe ci daara ji incha allah waa daara ji dinañ ci jot te digg nañ la itam ne nañ ñaanu xaas boo xam ne mi ngi jugee ci daara ji euh, jërëjëf euh, Serigne Omar Cissé kon dañuy continuer li nga xam ne moom moo di liggéey bi mu di émission kàddu daara yi ngeen ànd seek euh, seen mbokk seen xarit soxna Jamilatu Jaxate mu koy amal fii ci télévision ma Mafatihul Bichri kon euh, Serigne Omar euh, bu ñu déggee say wax euh, sànq da nga wax ne maanaam sa daara ji samedi ak dimance lañ dul jàng la ñuy noppalu mais ñun bi ñu ñëwee dañu fekk ngeen def lu mel ni ki benn kuréel di ci jàng li nga xam ne moom moo di nachid maanaam ay way yoo xam ne way ay maam fa ñett maam xalifa ñes mu di way yu am solo ndax daay daa daara ji dafa am daayira wala loolu ci njàngum alquran mi la bokk. daara ji dafa am daayira. daayira boo xam ñu ngi tuddee daayira sopp maam Khalifa Niass parce que njaboot soo ko yoree euh, dañuy wax ne ku demoon ajjumaay Moussa rek dem dimanche Firawna te ñun bëgguñu suñu xale dem dimanche Firawna moo tax ñu téye leen ci ajjumaay Moussa ji te maam xalifa dafa liggéey yonent bi liggéey si Ahmad Tidiane loo xam ne ci ay xasida yoo xam ne kenn xamul nu mu toll léegi tamit te xam nga xasida gi su ëllëgee bu ñu jàngee surtout maam xalifa xasida mi li ci nekk ci luga nekk ci xeeti xam-xam surtout balaaxa xale yi suñ ko mokkale jamono bi ñuy nekk ndaw bu ñu demee ba mokk alxuraan jàng xam-xam xam lu ñuy firi su boobaa xam-xam dafa di yomb ndax fekk ne li ñu waroon a jàng ñu mokkal yax bi beneen ba tamit dafa nekkoon góor yàlla goo xam ne lu bëri ci xale yi seen waajur yi taalibe maam xalifa lañ bëgg ñu sànk kon képp koo xam ne waajuram taalibe maam xalifa la moom bu ñëwee ci daara ji rek ak lu mën a xew dafay bokk ci daayira bi ñi nga xam ne nag ñoom seen waajur nekkuñ taalibe maam xalifa bu ñëwee ñoom ñu jàngal leen alxuraan waaye daayira bi ci ndigalal sëriñ bi tamit ci la daayira bi sosoo woon ndax euh, dama koy faral di wax ñun maam xayo dafa defal suñuy waajur defal suñuy maam defal ñu loo xam ne néew na maanaam dafa rëy ci ñun moo tax fu ñu mën a nekk ak lu ñu mën a nekk rek wan nit ñi ne leen ñun ci njabootam maam xayo ñu bokk moo tax xale yi euh, te tey ñu ngi sant yàlla parce que daayira bi ni muy génnee ay kàgg noonu lay génnee tey ay cadre wéykat ci kër maam Khalifa tey fi ne nii boo xoolee jeunes yi wéy ci kër maam Khalifa dañuy wax ne boo fi génnee juróom daanaka boo fi génnee Omar génnee Seydi Bachir daanaka imaam Xasan doo lim lu mat juróomi nit koo fi gisati tey ci ñeseen mu nekk wéykat bu mën a wéy fii la génnee ci wéy fii lañ ko formé ci wéy na kitaab bi dafa am xalifa même Kaolack fu ne fa tabaarakallah dañu am daayira boo xam ne daal moom tey bu ñu amee gàmm bu ñu neexee duñ duñ jiggaani dara lépp rek boo xoolee même ñaari année yi sax danañ fi conférence yoo xam ne xale yi mokkalee alxuraan ci daara ji ñoo koy waxtaan ñoom ñi ñoo koy wël seen bopp loolu daayira bi tey am na ñu fi génnee ñoo xam ne ay borom yi xam-xam ñu ngeen dégg senegal macha allah moom ci côté moo tax dañu bëgg ñun bu ñu paree ci yow rek côté bu la nit làmb rek fekk la fa fu ñu la woo rek nga mënee fa moo tax ñu boolante daayira bi ak daara ji xam nga daara daayira mooy daara parce que mag mi dem ba montut a jàngi xam nga jàng du wees waaye jàngi dina wees su ko defee ñun bu ñu daayira bu ñu ba ci waxtaan yàgg ñu arrêté mag mi dëkk ci koñ bi ak ku ko fekkee nga am loolu lënd sa diine nga bind laaj daayira bi tontu la biir loolu tamit xale bi ñu ngi koy jàngal Euh, wax ñu bindal ay discours ñi di ko waxtaanee ñoom xale yi su ko defee jàngal leen communication ci biir loolu yëpp daara moo ko jàngale ba alxuraan daara ji jàngale alxuraan daara bi moo jàngale communication jàngale wax wax ci biir mbooloo su ko defee tamit nga xaw a ñeme nit ñi su ëllëgee boo génnee doo nekk benn complexe boo xam ne loo mën a nekk te xam nga tey ki tàmm ci daayira bi nit ñëpp toog nga jug di wax jug di jàng alxuraan soo ëllëgee bu bëggee participer ci beneen concours alxuraan ak fu mu mën a dem fekk yàgg na dem ci biir mbooloo loolu tamit daayira bi dañ ci dimbale bu baax a moo tax dafa am daara am daayira fa Serigne Omar Cissé mu mel ni ki loolu leer na nañ yaakaar naa ne ci mbokki Mafatihul Bichri yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan Euh, gannaaw ba ñu noppee ci loolu itam xanaa dinga ñu baaxe lenn loo xam ne dafa ñëw maanaam jëm ci wàllu njëriñu alquran ndax du ñàkk euh, ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision Mafatihul Bichri ñu bëgg a am luñ jëriñoo ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu alquran euh, baatin boo xam ne dañ koy jëriñoo ñu ñëpp ñu bokk ko ginnaaw bi nga ñu xamalee njëriñu alquran ndax alquran ni ko yàlla waxoon yonent ba maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin dama laa yónni ngir nga nekk yërmande ñeel aalam bi aalam bi nag suñ ko waxee yàlla kottu ak jëm boppam ji moo ci génn ku dul yàlla rek ci aalam bi nga bokk te alquran la yàlla ne woon wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahma dama ko wàccee mu nekk saafara ak yërmande ñeel jullit ñi kon soo waxee loolu dinañ ci am solo su ko defee ñu nekk bitim réew nga xam ne ñoom dañ leen a xam ci dang-dang yi di ko sëriñ xaat di waxee lu mel ni Ndakaaru mel ni réewam golo yéeg wàcc ñu ngi ci métro yi ñu ngi ci avion yi leen di njëkk baaxee rek mooy musluwaay boo xam ne ku ko ciy jàng di dugg ci oto wala météo lu mu mën a doon yàlla dana la musal ci ay accident mooy inna anzalna fi laylatul qadri su ko defee saar woo doy waar wu yéeme ci ak ci secret accident soo yàlla dimbalee nga saxoo ko te bañ koo fàtte heure booy dugg ci oto wala ci lu mën a doon nga jàng ko ñetti yoon te bu njëkk bi nga baamu salaamun gi ñetti yoon xaw ma tey yàlla tere waaye ya nga dugg su accident woon ba ñëpp dee ba doon ba mokk rumbaxit yow xoos sax ko def moom kaaraangeeg alxuraan la beneen bi ci des tamit mooy xam nga alxuraan dafa làmboo njëriñu àdduna ak bu àllaaxira xëy na sax loolu ñu bëri xam nañ ko waaye euh, sama mbokk jullit ñi nag maa wax ne képp ku julleeti ba pare bi nga sëlmalee nga def astaghfirullah ñetti yoon rek day teg ayatul kursi benn yoon jullit bu ko saxoo saa soo génnee àdduna dugg ci biir bàmmeel kenn du la xisaab mun ko rek nakir du ñu la fekk bàmmeel day laaj dara te bu ñu la xisaabu rek di nga dem aljanna su ko defee tamit am na ci tamit yeneen kayfiyaat maam yeneen jëfandiku yoo xam ne nag moom dee su ko wax ci télé ak i rajo ndax na euh, sirru nag moom dañ koy nëbbu am ci yoo xam ne it ku ko intéressé képp ku nekk bitim réew it te bëgg doo dee àll foo mën a nekk ci àdduna su fekkee bala ngaa dee ñibbi fi nga dëkk su boobaa boo jotee ci numéro yi boo woowee rek joxe sa numéro boîte su ko defee xëy na mën nañ ci dimbalawante ndax xam nga sirru mooy lu ñuy nëbbu te am na ci loo xam ne tamit sañu ñu ko wax euh, ci télé bi ak ci rajo bi mu mel ni rek réew moo gis dafa am secret d'état alxuraan tamit daf ci am secret yoo xam ne nekkul rek mën nañ ko wax publiquement waaye daal ñu ngi wax yooyu am na ci yoo xam ne tamit wala nga bëgg ay kayit yu ci aju su boobaa dong yaa ngi ne xale yu ndaw yi am na dog yoo xam ne bu ñu ko defee rek su ko defee yéen daal moom ku ko bëgg su ko defee dugal ci numéro bi rek nga wootee ñu jokkoo waaye daal ñaar yooyu ñu ngi koy baaxee nit ñëpp te di leen wax ne leen alxuraan moom képp kuy commerce te bañ a perte bu nga am boo investir cinq cent mille gagné cinq millions wala nga gagné un milliard bunt bi mooy alquran yàllaa ko wax inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata fa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur képp koo xam ne da ngay dépassé al ci yoonu yàlla te taxawal julli juróom ji génnee asaka di jàng alquranil karim di ko taxaw yàlla ne ne yaa ngi ci commerce moo xam ne du perte ba pencam yàlla commerçant yi nag xam nañ ne commerce moom saa su pertut donte heure boo jëndee marchandise am bénéfice lu mu tuuti tuuti gannaaw bu nga defee say frais ba yàgg rek nga doon dara ba yàgg rek nga mën lu baree baree bëri loolu nag ku ko bëgg rek bunt bi mooy alxuraanul karim malheureusement nag tey ñu ci bëri ñu ma koy faral di waxee su fekkoon ne nit ñi ñu man ci fomi ci musique beeg làmb ji moon nañ ko ci alxuraan ji konoon jafe-jafe ci àdduna bi wàññeeku na waxuma sax euh, waaye maa ngi wax jullit ñi ya waxtaan yéen ñi nekk bitim réew yàlla dénk leen wërsëg bu dul daara ji tamit daar yi ci àdduna bëri nañ waaye fu mu mën a doon na ngeen jël seen wërsëg yéen yàlla dénk ngeen ko dugal ci daara yi rawatina asaka moom joxe ko dafa war te ay jullit lañu comme bu ñu mënta jël ci am bu ñu liggéeyee ba at mi jeex ñu jël seen asaka ji évaluer ko yónnee ko daara dañu am ñaari pay dañu am pay ku joxe asaka am pay ku taxaw alquran te yonent bi dafa waxoon ne ku tabaxal yàlla benn néeg ci kaw suuf yàlla dana tabaxal pale ci aljana pale man banaa lillahi masjidan banaa xasran fil jannati walaw ka mafatin xattaatin donte li nga tabaxal yàlla dafa tuuti ba mel ni tàggu picc moom ndaw noonu di picc te yoon dafa waxoon ne al madaris qabla masajid nañ tabax daara yi door tabax jàkka yi tey Sénégal ngay gis yu bëree bëri jumaa dëkk boo dem te bëri na dama koy faral di wax bëri na jàkka ak jumaa yoo xam ne ku fi julli amoo julli parce que yow boo xamee farataay julli xam sunna te imaam bi xamoo soo te bëri na fi imaam yoo xam ne waxuma la euh, sunna dara xamuñu ko da faatee gu baax sax am na imaam yoo xam ne mënuñu ko tey Sénégal liggéey ba retraité ñëw ci jàkka jumaa buuxante di xatal nit ñi may jiite histoire bi tojante bopp yi yooyu yëpp ñàkk jàng koy waral dafa bari kon nag bu ñuy taxaw woon daare ñu ne war taxawee ko noonu soxna Jamilatu wallahi crise bi nekk si àdduna bi du am ndax dama ko waxee ci commencement bi yonent bi dafa waxoon bi muy génn àdduna dégg nga ca xajjatul widaa laaj saxaaba yi ndax jotal naa ba al yawma akmaltu lakum diinakum daal di wàcc yàlla wane ne moom matal na lépp mu ne leen maa ngi dem waaye nag ñaar rek la leen bàyyee te yi ma leen di bàyyee fii yéen ci jàpp du ngeen sànk ba pincam am taraktumul amrayni ma in tamassaktum fa an tadillu baadi abada ñu ne ko ñaari ñi bàyyi yow sidna Ahmad mooy lan mu ne kitaaballahi téere bi yàlla bii di alquran wa sunnati ak sama sunna si man Muhammad lii rek laa leen bàyyee yéen nag bàyyi fa leneen moo tax ñi ci jàpp di jëriñu rek ku ci jàpp tamit doo jëriñu kon lii daal mooy message bi nga xam ne ci li ñu laaj ci loolu lañ ciy ñàmbaasaale gannaaw buñ ndax euh, yett boobaa dara nekku ci waaw gi nga xam ne ci diggante oto yi yi dégg nga avion yi dañ koy jàng ñetti yoon bu njëkk bi ñu baamtu salaamun gi ñetti yoon képp ku dugg ci loo mën dugg jàng da nga wàcc jàmm avion sax boo ci duggoon ba accidenté doo dee te xam nga innaa anzalnaahu moom suñ ko bëggoon wax la ci nekk xam nañ ko beneen ba mooy boobu mooy njëriñu àdduna bi ku ci bëgg njëriñu àllaaxira nga xam ne boo génnee àdduna a nga am noflaay ci sa bàmmeel malaaka yi du ñu la sonal du ñu la mbugal da ngay saxoo julli goo julliti boo sëlmalee gannaaw astaghfirullah ñetti yoon nga jàng ayatul kursi même am na benn aaya sax bu nekk ci laaraaf ma ñambaas ko ci xëy na xëy na moodu moodu yi mën naa am ñoom seen dëkk yi mel comme Sénégal nekk ci àll bi waaye daal ku ko seetaan dem ba guddi daba ci àll foo xam ne amoo foo dugg am na benn aaya bu nekk sootu laaraaf di inna rabbakum allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda fii sitti ayaami thumma stawa ala arsh yughshi layla wan nahaar yatlubu xasiisan wa shams wal qamar aaya boobu soo ko jàngee ba mu jeex nga daal di koy sa loxo jël sa loxo daal di koy rëdd foo ko rëdd nga nekk ci biir rëdd wa gaynde sax boo fekkoon du mën a yegg ci yow du jinne du benn rab du dara lu mën a lore loo mën a lor foo la neex tëdd fanaan ci àll loolu yëpp kaaraange bi alxuraan rek ko am mu ngi sootu aaraaf jërëjëf euh, Serigne Omar Cissé comme ni mu leen ko waxee rek indi na lu am solo ngir baaxee ko ñi nga xam ne ñooy euh, seetaan euh, mafatihul bichri wax na itam ba'da a'uuzu billahi mina sheytaani bismillahi rahmaani rahim inna anzalnaa fi laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi shahrin tanazzalul malaaikatu wa ruuhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matla'il fajri Euh, wax na ne booy dugg ci oto da koy jàng euh, ñetti yoon boo eggee ba ci salaamun bi nga wax ko ñett yoon wax na itam ginnaaw bu nga jullee ba noppi nga wax astaghfirullah ñetti yoon jàng ayatul kursi yi euh, loolu lépp kaaraange boo xam ne daf ñu baaxee ci li nga xam ne moom moo di émission kàddu daara waxtu wi moo ñu ko dul may waaye kon dinañ ko faram li nga xam ne moom moo di saar bi ak lan lay tekki kon xanaa dañuy jox ndongali mu jàng alquran bu ñu paree ñu daal di tàggoo.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 Euh, ginnaaw bi nga xam ne dégg déglu nañ ndongo li nga xam ne moom moo di jàng euh, alquran bu am solo boobu euh, mu di suratul kafirun mu di al mu di saar wu am solo boo xam ne ni seydina muhammad salallahu alayhi wa la ko yonent bi waxoon yaakaar naa ne su ko waxtu bi maye woon dinañ ko tekki lakkum diinukum waliya diin mu nekk lu am solo dañuy jox sëriñ Omar mu joxe kàddum yu mudd daal di tàggoo ndax li ngeen def nii dafa war ndax alquran bu ñu xëyoon benn bis jànguñ ko rek àdduna bi tukki kon yéen ñu koy seetu di ko nemmeeku di xool résultat yu baax yi mu def ngeen di ko wane ñu ngeen sant di leen gërëm ndax am na ñeneen ñoo xam ne safaan bi la ñuy def dañuy seet euh, daara yi mu baax duñ ko jéem a wax di di ko jéem a sosol lu bon di ko wane kon bu ngeen defee li leen war ci war jullit ñëpp dafee na war ñu taxaw alquran ñu ngeen di sant ndax bi borom xam-xam yi waxee nit bu defee la ko waruñ koo sant suñu maam alxaaj Abdoulaye Niass dafa bañoon ne laa shukra illa alal waajibi war ñoo sant kenn du ki def li ko war kon ñu ngi gërëm bu baax seen télé bi di leen ñaanal yàlla waaye tamit di kontaan ci jëf ji seen tur xasida Sëriñ Tuubaa bu am solo bii di Mafatihul Bichri di ubbeekaay mbégte yi ngeen jël ko tuddee ko télé bi ñu ngi ñaan yàlla na tur wuyu borom ndax su wuyee borom rek su boobaa mbégteem àdduna ak àlaaxira yàlla dana ko joxe te yàlla na yàlla defal leen ko yàlla na dem ba bokk ci le meilleur télé ci monde bi ci barke Yonent bi saa salaam ba ci internet bi Sénégal di ko seetaanee ci télé ñu dem ba di ko jàpp tamit ci télé Sénégal yi mu gën a yomb ñëpp mën koo gis kon daal loolu amoon lu ñuy yëkkati wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokki téléspectateur yi nga xam ne yéenay seetaan Mafatihul bisiri euh, tey nag seen kàddu daara yi ñu ngi ko doon defee fii nga xam ne moom moo di daara mahadul quranul karim di tarbiyati wa tahfiisi bi riwaaya tey nii bu maam Khalifa Niass ñu fekkoon fii sëriñ bi nga xam ne moom moo di sëriñ Omar euh, mu doon def waxtaan wu am solo ci émission kàddu daara yi kon ñu ngi leen di jaajëfal ngeen àndoon seeg seen mbokk seen xarit soxna Jamilatu Jaxate ci émission kàddu daara yi di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah